dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck dal leen ak jàmm daanaka fépp ci yéen kaay yu nu xëyandoo l'observateur ne Sabassy Faye mooy attekat ba jox dëgg Ousmane Sonko keroog alxames ca tribunal ba nekk ca Ziguinchor journal Futurs Médias bi del ci jaar-jaaram la taxoon yóbbu ko Koungheul ba ci seedey mbokkam yu ko jege lépp journal Rue 15 angle corniche bi xëy na di ci wax L'As Quotidien itam waxi Sabassy Faye la xëy di wax di ñu xibaar ne Union des magistrats du Sénégal génn nañu bataaxal di artu agence judiciaire de l'État la ko cëréer la def ca tribunal ba nekk ca Sigicoor ba lépp jeexe ba attekat ba jox dëgg Ousmane Sonko ne nañ ko jox fiche parrainage am ndax jàpp ne direction générale des élections dogal ba nu jël du yoon gannaaw ba ca la agent judiciaire de l'État génne bataaxal dal ci kaw attekat bi ak na mu àttee kuréel gi leen ëmb di Union des magistrats du Sénégal ñoom artu ne li mu def te déwul ak yoon ndax ab attekat bu attee la mu jàpp ne mooy yoon boo ca àndul yoon may na la nga defub recours te yam ca maître Bamba Cissé bokk ci avocat Quotidien ne atteb Ousmane Sonko bi ca Ziguinchor daal andi na coow ci diggante Union des magistrats du Sénégal ak agent judiciaire de l'État journal L'Info ne clash dëgg moo am seen diggante Le Quotidien moom duppee ko audience spéciale enquête yéenekaay ne bataille la boo xam ne jeexagul Ndiaga Sylla di ab expert électoral ci biir yéenekaay bi ne ba atte ba daanoo lan waroon a jox Ousmane Sonko ay ficham terewul ne Cour suprême moo yore kàddu gu mujj ga journal bi ne bu weesoo mi mbir itam am na meneen mbir mu ko mën a fa kastal moom Ousmane Sonko di mbir mi dox ci digganteem ak koy layul yóbbu ko ca kanamu cour suprême Walf Quotidien Ousmane Sonko daal jege na waaye sori lool itam élection présidentielle yu atum 2024 bi la journée lu ci mën di am daal atteb keroog ba moom union des magistrats du Sénégal wàll si na ci source aane keroog atte ba itam ca lan tegoon loxo maire bu Bignona di Bakary Diédhiou waaye yéene kaa na moom gendarme yi dañ koo yàgg rëbb bu doon xaar bés bu rafet ngir ñu teg ko loxo ndax jàpp ne présidentielle ci réewum Sénégal réew mi quotidien ne Mohamed Boun Abdallah Dionne candidat la cay doon waaye kaful mbooloo mu takku ba jéggi dayo ñoo ko teeru woon ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès Habib Niang bokk ci ñi koy jàppal tànk di ko benn million ci ay parrain Sud Quotidien ne yooyee élection ñi doon xaar ñu tabb ministre spécial boo xam ne moo koy organiser dinañ xaat yi ndax Macky Sall na woon fa woon ay xeltukat ci biir yéenekaay bi ne réew mi ak ministre bu mën di doon mënoo fee organiser élection yu lëndëm léppay leer li leer te wóor di Macky Sall tase naak ay député mu l'observateur ne waxtaan wu yàgg te guddee la mu yab leen ni ñuy yabeb seet dem banaan leen bàyyi leen seen coowoo yi Amadou Ba mi seen candidat kitaabu ne dina génn bureau yi dugg àll bi source a ne waxtaan wa kay waxi parrainage moo ca ëppoon les éco ne député yi fare ci benn bokk yaakaar ñoom ñëppam enseigne ñoo ngi ci gannaaw Amadou Ba bu weesoo ñett wala ñeent yoo xam ne dañoo nekkul ci réew mi yéenekaay bi yokku ci ne ci ubbiteeg session ordinaire unique bu assemblée nationale dina am ci diggante député yu Pastef ak député yu fare ci taxawu Sénégal ndax ñoom ñi ànd ak Ousmane Sonko dañoo bëgg a beddi fare Xalifa Babacar Sall te ñoom it duñ leen ko yombal benn yoon tribune yéene kaay ne moo tax mu nar a doon ay waaju nekk jàmmiwaay cooloole waa Benno Bokk Yaakaar dong ñoo ca nar a profito ñi profitowul benn yoon ci nguur gi fi nekk ñoo di waa département bu Diourbel direct news ne moo tax bu juróom-ñeent ca fukk ak ñaari meer ya fa nekk fa yéene woon gannaaw Benno Bokk Yaakaar Omar Ba mi président association des maires du Sénégal ba mu fa demee juróom-ñeenti maire ya kenn ñëwul ndax ne dañ leen fàtte ci lépp boolewun leen ci blim te monte nag élection yu ñëw biir Diourbel nguur gi dafay lajj ñoom lijjanti ca seeni commune ba tax ñu dégg fa daal waaye lii lépp terewul Jurbel ak i goxam wéy di toltolaan ministre Fat ma fa fekk baax gars yi ko fi mu toll nag Amadou Ba moo cay uti pexe pexe yi Baay Faal ca Touba moo di fexe ba lépp lañ fay tere ñu jëfe ko libération yéene kaay ne moo tax ba fitna amoon na fa lii am ba tey ci géej gi jeexagul tribune yéene ne am na geneen gaaluguloo ca guddee xëy ci réewum Sénégal teere ji ca Ténérif yaboon téeméer ak ñaari doomu yoo xam ne am na juróomi jigéen ak ñaar fukk ak juróomi tut tànk tànk ak tànk mbagg ak mbagg dëgg la Sénégal ak Cameroun masa def ci football bi stade yéenekaay moo ko wax ba noppi yokku ca ne ku jëla goo xam ne yàgg na record yéenekaay ne dinan jongante ca kaan ba dinan amal itam jongante xarito waaye fawu Aliou Cissé xool ki muy teg ci flanc droit bi lamb yi nu teg ci weeru novembre yépp a neex sunu làmb yéenekaay ne Ama Baldé Modou Lô Eumeu Sène Tapha ak Siteu Lac de Guiers numéro 2 yépp ci weeru novembre la ñuy amee waaye journal bi nee na jàkkaarloo bi nar dox ci diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène suba lay amee ci télévision Futurs Médias